asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tour ak ci seen sant man Jean Fall nekk astrologue di yëngatu ci wàllu mbirum biddéew yi ak ni nga xamee ne loolu lañu biddéew yi ak suñu borom dégg nga santé pour que rek ñu daal di euh, gindeeku dénga di gidewu ci biddéew yi man may dellu si fii nag di leen jox nag jàngatu atum 2020 dugg deux mille li nga xamee ne nag moom lañ ci gis moo di que ne rek deux mille bi nekk na at boo xamee ne euh, dafa nekkoon at bu doy waar at boo xamee ne yëngal na àdduna bi yëpp yëngal doomu aadama yi suñu borom dugal ci ay loxoom. dégg nga pour won ñu li nga xamee ne rek moo di euh, moom buur bi nga xamee ni moom rek muy buur wan ñu dooleem wan ñu mëninam dégg nga won ñu ne comme ni mu ko waxee ci alxuraan daal di ne man man maa leen di yónnee li ma neex ak li nga xamee ne ñoom mu nekk ci euh, ay mbirum feebar Euh, di leen ko yónnee yéen ñi ma yónnee euh, yée téere bi yéen ñi nga xamee ne yéen a nekk ci euh, di ma geer wala di ma xeex gëmu leen ma man di leen ko yónnee de du ngeen xam fu may jaar loolu boo demee ci alxuraan ci surat 74 di nga ko fa fekk aaya 31 defati aussi ci nim ñu ko waxee ci alxuraan mu ne dama tàllal asamaan si dégg nga daal def que ni biddéew yi ngeen di ci mën a gindeeku ak ci biir géej yi ak ci lëndëm yi ak ci kaw suuf ci biir loolu nag ñu daldi di gis ne 2020 bi ni nga xamee ne noonu la salfaañoo jalaañoo ci biir àdduna bi euh, ñu daal gis ne na nga xamee ne sentiment d'empêchement bi nga xamee ne rek moom la euh, nekk ci euh, deux mille vingt bi moo nekkoon ci deux mille vingt bi dégg nga deux mille vingt et bi nag dina nekk année boo xamee ne moom la tubaab di wax année de l'empathie et du année de l'empathie et du cœur empathie moo di ne ñi nga xamee ne dañuy soxla ñu taxawu leen soxla ñu yëg yëg yëg yi ñuy yëg. dégg nga comme ni nga xamee ne rek noonu la ñu euh, bi ñu demee ba teg ay mesures barrières kilifa yi teg mesure barrière keroog ba nga xamee ne kilifa réew mi nee na fi ñu toll nii dañu war a euh, ba dund ak virus bi daf ci amoon ñoo xamee ne ñu ngi naan ah bàyyee nañu feebar bi te fekk loolu yëpp dara amu ci li nga xamee ni moo ci nekk rek dégg nga ñuy jóge nag ci bësu tey bii di dugg ci deux mille vingt et un deux mille vingt et un bi nag dafay nekk nag année boo xamee ne bu compliqué ndaxte euh, tiitaange dina am moom la tubaab di wax stress ak ni nga xamee ne noonu lay euh, fit yi dina bugg rëcc mooy angoisse yi ndaxte dafa am ay feebar yoo xamee ne ak feebar yu bees feebar bi fi nekkoon ak feebar yu bees yoo xamee ni dafay euh, def toujours rek ñuy toog naan dinañu indi ay confinement dégg nga dina am ay euh, tension haute tension sociale yoo xamee ne da nga koy nar a gis ci biir deux mille vingt et bii ndaxte boo xoolee rek comme ni ma koy waxee toujours rek di wax ne bidéew balaa muy jóg la muy liggéey si daf la ci ñamal dafay mel ni cin boo xamee ne buy bax rek di xeeñ dégg nga ba keroog muy yegg si te ci biir loolu li nga xamee ne moo noonu la ñu gisee euh, biddéew yi ni ñu tëddee ci kaw asamaan ak position planète yi nga xamee ne ñoo ci nekk keroog ba nga xamee ne euh, biddéew bi ñuy wax Jupiter ak biddéew bi nga xamee ne moom la ñuy wax Saturne dégg nga dajaloo nañu dégg nga daal di def benn conjonction ñu daje keroog jooju doolu di gis ne ñu euh, euh, dañu annoncé woon que dina am ay violence dina am ay jafe-jafe ak ñu mel noonu yëpp te loolu yëpp dafa nar a continuer ci biir deux mille vingt et bi te ci biir deux mille vingt et bi da ngay gis que ni euh, li nga xamee ne mooy Pluton ak bi bidéew bi nga xamee ne moom la ñuy wax Saturne ak bidéew bi ñuy wax Mars dégg nga bu ñu ñëwee ba ci Capricorne dañuy indi ay signes yoo xamee ne moo di ay signes d'enfermement enfermement ak euh, insatisfaction ak austérité mooy ni nga xamee ne rek noonu ngeen gisee jamono bi ni mu commencé di tëdd noonu day dem di law di continuer ci biir 2021 bi à cette époque dégg nga di ngeen gis que ni ci fi ñu époque bi ñu nekk nii ngeen gis ne même dëkk yi nekk Europe da leen di gis ñu naan nañu confiné wu nañu jël couvre-feu nañu yokkaat couvre-feu ndax ndaxte ci diggante bi virus bi nga xamee ne moom moo nekkoon di lëmbale àdduna bi lu toll na ci lu toll ci ñaari junni ñaari euh, ñaari junni ak euh, fukki junni ak euh, ñaar yoo xamee ne transformé wu na ci soppaliku na ci ba ay melokaan ak na mu taxawee su ngeen xoolee ni nga xam ne ni noonu la virus bi taxawee fële ca euh, Angleterre ñu gis ne rek que ni euh, benn ci li nga xamee ne rek mooy li nga xame ni moom la ñuy gis nii dégg nga nekk nag loo xamee ne du pour tiital nit ñi waaye dafa am nag loo xame ne suñ borom moom la ñu sax li ñu suñu borom wax nag moo di stratégie yooyu nga xamee ni jëloon nañ ko fii ci réew mi jël ko ci àdduna bi mu am benn stratégie boo xamee ni sénégalaise boo xamee ne moom la ñuy défendre li nga xamee ne moo nekk ci réew mi ak ni nga xamee ne noonu la nit ñi di dee dee yu bare yi pour la première fois loo xamee ne amagul fenn loo xamee ni ci biddéew yi fa la jóge moo di que Euh, bu ñu defee ay mesures yoo xamee ne pour xeex feebar bi il faut que ñu daal di indi nag ay mesures yoo xamee ne pour arrêter dee gi ndaxte dee gi mosuñu dañu fogoon rek mbiru yàlla la mais fi ñu toll nag suñu borom ci boppam mu ak biddéew yi moo ñuy sa pour que rek ñu daal di mën a trouver ay stratégie yoo xamee ne dina tax ba nit ñi dee wàññeeku ndaxte bu njëkk ba foogoon nañ ni ay jinne la léegi nag xam nañu ne li nga xamee ne mooy tax dee bi di gën a bare li nga xamee ne deewuñu ca euh, feebar bi amoon na feebar yum fi fekkoon ñooñu bi feebar bi ñëwee tiitaange bi taxaw na taxawaay boo xamee ne rek yaakaar nañu ne euh, feebar bi buñ ko euh, buñ ko xeexee dégg day dina wàññeeku naam dégg dina wàññeeku waaye nag ca biir feebar ba dégg dina fa wàññeeku waaye feebar bi li mu fi fekk mu ngi bëgg a lottal askan bi donc war nañu jël ay mesures appropriées yoo xamee ne eh, fii ci Sénégal pour rek daal di mën a wàññi ñi nga xamee ni ñu ngi dee ndaxte mu ngi bare ñeen fukki dee yi nga xamee ne tey bër bi may wax nii mu ngi am bu ñu ko bàyyee nii ñi nga xamee ne amoon nañ jabet ñu amoon cancer ñi nga xamee ne dañu dawoon hôpital yi parce que dañ ragaloon feebar bi te ñemeetuñu dem kër docteur yi dina ñu dee tey dee yooyu yëpp lu ñu mën a moytu la di wax rekk ni ci wàllu nag li nga xamee ne mooy euh, mbirum nag dajaloo bi nga xamee ne moom la Jupiter ak Pluton dajaloo ci kër gi nga xamee ne moom lañuy wax Capricorne loolu mosoon na fi am bam fi amee ci waxtu 1347 dégg nga mooy bi nga xamee ni ci la feebar boobu ñu doon wax peste ci la fi amoon ak épidémie grippe espagnole bi nga xamee ne amoon na 1918 parce que li nga xamee ne euh, dafa nekk ci signe bi nga xamee ne mooy mooy touché axe poisson ak vierge ak lion ak capricorne les signes solaires ou ascendants mooy li nga xamee ne rek moo tax ñu dal di ne deux mille vingt et un bii il faut que ñu daal di delluwaat continuer li nga xamee ne moo di mesure barrières yi parce que loolu moo fi sës ndaxte vaccin bi ñuy wax sax vaccin bi ci boppam eh, ñëpp wóoluwuñu ko sérum bi nga xamee ne moo war a faj feebar bi génneeguñu ko gisaguñu ko ñii ne nañu affaire xaalis la ñii ne nañu affaire kii la waaye dafa am lenn loo xamee ne ci deux mille vingt et bi gisatu leen fenn foo xamee ne dégg ngeen fa nee nañu ñu ngi jël ay xaalis di ko dimbalee entreprise yi gisatu leen fenn foo xamee ne ñu ngi naan ñu yokk politique bi joxe liggéey xale yi gisatoo fenn foo xamee ne crise yi mu ngi bugg a am ak li nga xamee ne rek moo di crise naturelle yi nga xamee ne dégg nga fan yii ngeen gis pétrole bi daal di exploser fële ci ndàngal ma dégg nga ci dëkk boobu ñuy wax ndàngaan xaw ma dégg nga te ba tey ji nii nekk ay jafe-jafe yoo xamee ne ba tey ñu ñi nga xamee ne ñu ngi wut ay pétrole dégg nga amaguñu ay jumtuwaay yoo xamee ne lu mel noonu catastrophe naturelle yooyu su amee naka lañ koy dékkoo di wax rekk ni ci wàllu nag euh, crise mondiale boobu nga xamee ne moom moo nekk ci euh, waxtu bi euh, nga xamee ne Jupiter ak Pluton ñu ngi taxaw nii dégg nga ñu naan dafay am ay deuxième vague dafay am ay euh, mbas mi dafay jógaat mais dañu bugg rek wax nit ñi ne leen mbas mi dina ñu yóbbu ba ñuy wax li nga xamee ne moo di mi euh, deux mille vingt deux janvier deux mille vingt deux dem ba euh, juillet deux mille vingt deux foofu dinañ ci gis que ne ma jafe yëpp dégg nga jóge ci deux mille vingt dugg deux mille vingt et un ñëw ba ci mi deux mille vingt deux foofu la ñu mën a yaakaaree ni yaakaar laa wax de que ne mbas mi dina dem parce que pexe yi dina ñëw ndaxte dinañ indi pexe yoo xamee ne pour xeex mbas mi yeneen feebar yu bees dinañu feeñ daal di indiwaat li nga xamee ne moo di xeex euh, pour la première fois ñuy xeex déegi xeex déegi ay mesures mooy ñi ñu jiite fii ci Sénégal war nañu euh, xeex déegi dee gi nga xamee ne mu ngay gën a bare ca Europe ñoom ci seen bopp sax yàlla mayagu leen xel pour que rek ñu daal di ne ñu ngi topp mbas mi topp mbas mi topp changement yi waaye déegi ci boppam kenn waxagu ci waaye ñun ci suñu bopp bu ñu fexee ba nga xamee ne suñu mbokk yi amoon jabet suñu mbokk amoon feebar yu leen fi fekk moom laay wax feebar périphérique yi waaye paludisme suñu réglé loolu rek suñuy dee dinañu wàññeeku te itam mbas mi dinañ ko dootul mën a yóbbu faagaagal ñu bare wax rek ni li nga xamee ne mooy indi nag ci jafe-jafe yi nga xamee ne ñu ngi koy dund ci waxtu bii dégg nga bu ñu ñëwee ba nga xamee ne yegg nañu ci wàllu violence yooyu nga xamee ne mu ngi nekk ay menaces fi ñu toll nekk ci planet yi nga xamee ne nag moom lañu ñu euh, moom lañuy wax euh, planet yi indi mbas mi daal nekk nag euh, ci euh, asamaanu deux mille vingt et bi li nga xamee ne moom lañ ci euh, jàngat rek moo di que ni deux mille vingt et bi mun nañu ko daal di diviser ci ñaari pàcc ñaari pàcc yi moo di que ni rek tubaab moom lay wax dañ koy def ci aspect planétaire majeur. dissonance s'effectuant entre le signe du verseau ak li nga xamee ni moom lañuy wax siñu taureau le dernier carré Jupiter ak euh, ki nga xamee ne mooy Uranus Uranus mu nga ca taureau ak euh, janvier suivi du carré bi nga xamee ne mooy Saturne ak bu février bi dem ba juillet ñëw ba décembre deux mille vingt deux mais li nga xamee ne mooy yeneen biddéew yi dinañu commencer di am ay adapte wook yu mel noonu te itam li nga xamee ne jàngat bi nga ci leen ci gis moo di ñi nga xamee ne dañu judd sous le signe du Verseau su le signe du Taureau su le sign du Capricorne du ñoo ñu ñoo concerné ci influx planétaire yooyu et ça va être plus compliqué pour ñooñu ñi nga xamee ne juddu nañ ci signe boobu dégg nga ci biir 2021 bi bélier yi yi Gémeaux ak balance ñoo ñooñu dem dinañu war a mën a génn ci situation boobu ñu def nag que 2021 bi li nga xamee ne moom laa ne da ngeen di jël seen bic ak seen feuille ngeen di ko bind bouleversement sociaux yi nga xamee ni ñoom ñooy nar a nekk nag dafay gën a tar di wax di nga temps boobu nga xamee ne passage Jupiter ak Saturne en verseau bu ñu rétrogradé ay signes contestataires révolutionnaires di boobu ne ñu xaar rek ne des événements yoo xamee ne dañuy toog rek dégg ne teel ne toj na dégg gis ay événements soudains ñoom ñooy li nga xamee ne ñooy nara nag euh, conditionné adduna bi ak Sénégal ci boppam adduna bi ak Sénégal di wax rek ni ci di wàllu nag événement soudain imprévu débordement excès de tout genre yi nga xamee ne ak besoin boo xamee ne nag maa ngi ci attirer attention suñu autorité mooy besoin de liberté boobu nga xamee ne dinañ ko gis ci àdduna bi mu ñëw nag di law ci Sénégal ce besoin de liberté la ak besoin irrésistible de liberté ak euh, le sentiment d'empêchement d'enfermement bi nga xamee ne ak conte bi nga xamee ne dañuy nar a contester affaire confinement yi nga xamee ne ci adduna bi confinement yi dinañ dem ba nga xamee nit ñi dañ naan confiner tuñu dara dañuy bind loolu gis nga nag ci loolu ci la ñuy toogee ba yegg ci janvier bii muy gannaaw suba euh, tension yi euh, dina am loo xamee ne lu mënul a ñàkk la ndaxte tension yi ñu ngi koy dund ndaxte soo xoolee xalif général ak benn imam boobu nga xamee ne mu ngi taxaw di menacer gouvernement bi naan dafa yónni ay jinne ñu daldi fexe ba wax suñu kilifa yooyu kenn yëkkati ay jinne di ko yónni ci kilifa réew mi du loolu du loo xamee ne dina neex yàlla di xëccoo affaire àdduna ndaxte imaam bi wax lébu yi ñoo ko moom ndakaaru loolu nekk na loo xamee ne du luy euh, defar te lu ko jar te lu diine da nga daal autoriser ci fi ñu toll nii ndaxte réew mi ñun ñëpp ko bokk di wax rekk ni affaire jël ay jinne di ko yóbbu li nga xamee ne jël nañ ko dégg nga euh, borom réew mi gis ne moom it dañ ko jox ay prérogative pour mu sàmm askan bi damay dellu si rek ci la alaaj Ibu Sakho waxoon di ne boroom réew mi ne yaatal gannaawam ñaan bi gën a mun a yegsi ñu daldi toog ci ni nga xamee ne noonu lañu ko biddéew yi saye mooy digge turu empathie boobu ma doon wax noonu ak turu kër euh, boobu ma wax noonu année de l'empathie et de cœur dégg ñu daal boole waxtaan bi waxtaan ci suñu biir daldi xam ne lu ñu rëcc ren yàlla mun nañu defal déwén ziyaara yi gu mën a gën a mën a amaat di wax rekk ni tension yi nga xamee ne moo commencé nekkul ne tension yoo xamee ne war na mën a yëngu xanaa ñu xëcc ko mais kilifa réew mi ci boppam bu dee mu ngi may dégg parce que damay wax ak askanu Sénégal balaa may wax ak askanu àdduna bi di leen wax rekk ni yàlla ci boppam moo taxaw waxal boppam dégg nga daldi ne lépp loo xamee ne dafa jóge ci message yu biddéew yi message yu jóge ci yàlla la te message bu jóge ci yàlla nag moo di que ni euh, indil nañu ay euh, musiba indil nañu ay jafe-jafe ci biir jafe-jafe yooyu nee nañu nañ ci ànd ak suñu sago dégg nga pour gën a taxawu nit ñi pour que gën a mun a def yëfu doomu aadama ñu muñalante yërëmante moom mooy en empathie boobu may wax noonu ñi dégg tubaab xam nañ li may wax ak cœur bi nga xamee ne euh, moom moo nekk condition euh, moteur bi nga xamee ne mooy daw ci biir 2021 di wax rekk ni Saturne nag kañ lay commencer di dellu gannaaw di dem di wutali euh, verso mooy fi nga xamee ne yegg nañu 23 mai 2021 dem ba le 10 octobre ci lay ñëw en verso di annoncer nag des sentiments de d'empêchement de revendication de frustration yoo xamee ne c'est au niveau des libertés individuelle kooku nag boroom réew mi yow maa ngi la ciy dénkaane maa ngi la koy dénk nga xool ne euh, sentiment liberté individuelle boobu nga xamee ne bu vidéo yu jógee ba foofu mooy indi nag jafe-jafe yooyu ñu daal di gis ne du 26 au 28 mai dans les signes du poisson puis octobre en verseau ñëpp Jupiter ak ñu koy gis foofu mun nañ yaakaar ne waxtu boobu dina amaat yeneen feebar yoo xamee ne dinañu génnaat dégg nga daal di gis nag waxtu bi nag daal di toll ci fi nit ñi nga xamee ne dañuy sës di am ay envi dégg nga di feete di daw di génn dégg nga nga xamee ne dañuy wax naan toogaat leen dégg nga mais li nga xamee ne rek foofu lay euh, da taxawee moo di que ne Jupiter bés bu yegsee ci signe bi nga xamee ne ci la ñuy wax poisson janvier deux mille vingt deux ci foofu la ñuy amee nag dal foofu la amee nekk au point culminant de euh, ci wàllu nag conjonction Jupiter Saturne dégg nga daal di jël rek euh, benn configuration astrale bi nga xamee ne fa la ñuy prédire que ni dans l'histoire la deuxième fois bi nga xamee ne lu mel ni am na fi euh, ñu daal di gis ne nag suñu borom pënd bi di commencer di wuri mille vingt deux vingt ci deuxième moitié bi jëm deux mille vingt ñu daal di commencé waat nag di daal dugg ci ay relance yi ci biir loolu nag li ma wax dara ne ko ci loo xamee ne rek lu neex a dégg la waaye ñuy jël suñu euh, li nga xamee ne moo ñuy euh, su moom la suñu borom teg dégg nga ñu ànd ak sago dégg nga fexe ba nga xamee ne rek li biddéew yi wax fi ñu toll te ñu xam ne foofu la ñu toll moo di que biddéew yi dafa indi que ne

ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk fii ci rajo bi di ci jiital nag suñu président directeur général monsieur Mbagnick Diop ak soxnaam ak ñi nga xamee ne rek ñoo nekk bitim réew ak suñu mbokk yi nekk bitim réew ak suñu collègues yi ak suñu techniciens yi ak suñu caméraman yi yéen ñëpp ak directeurs yeeg directrices yi Moustapha Diop ñëpp ñu ñu ngi leen di ñaan di leen ñaanal année bu neex te xam naa ne dina neex ndaxte processus de d'évolution et de transformation bi nga xamee ne moom la ñu toll ni yàlla mun nañu ci musal pour que ñu bañ a bokk ci li nga xamee ne du mun a évoluer te ak ci li nga xamee ne rek moom mooy nekk ci destruction ba ndaxte biddéew bi ko wax moom la ñuy wax Saturne biddéew boobu mooy biddéew bi ñuy indil ay épreuve biddéew te mu ngi def liggéeyam biddéew bi ñuy indil ay coono biddéew bi nga xamee ne moo ñuy euh, jëlloo prise de conscience ci jafe-jafe yi nga xamee ne suñu borom moom la ñuy teg te itam dañu indil li nga xamee ne rek moo ñuy génne nag ci jafe-jafe yi ñuy nekkee maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ku ci nekk nag fi nga toog di ma déglu maa ngi jégalu su dëngee rek ci man la waaye lépp biddéew yi wax nañ ko mu leer nañ maa ngi leen di gërëm di leen sant à l'année prochaine